voilà euh, mission CNG d'abord il faut ñu définir ko bien ñu recadrer ko mooy lan hmm. on nous a la lutte pour ñu développer ko protéger ko euh, lawal ko sous toutes ses formes sous toutes ses formes dafa bëri yaa lutte avec frappe lutte sans frappe lutte olympique lutte best wrestling et cetera donc nous notre mission ça c'est ça euh, et dañuy utiliser nag tous les canaux possibles mm-hmm. pour développer ko euh, si biir loolu ñu am ay partenaires muy les écoles des écuries de lutte muy les promoteurs muy les ménager muy même la presse y a une certaine presse boo xam ne c'est nos partenaires mm-hmm. et cetera et cetera donc ñun chaque fois on est en contact avec ces partenaires chaque fois on est en contact pour jéem a discuter ak ñoom évaluer ak ñoom waxtaan ak ñoom qu'est-ce qui est possible quest qui est faisable lii bu faisable leen ban yoon lañ ko mën a jaarale pour mu gën a baax mais on a on a un sport assez particulier très particulier je dirais lu tax euh, da ngay jël ay matuwaay yu leer ngeen signé parti yëpp toog ni tàkkoon nañ si matuwaay bi mais au moment d'exécuter beneen visage la ñuy gis beneen comportement la ñuy gis bu kenn mënul comprendre dama lay jox benn exemple bu doy wax démb. Mhm. Sa Thiès et Reug Reug daje nañ commission règlement discipline mais bi ñu gisee amitié ba fa am fraternité ba fa am. mënoo imaginer ñii deux jours avant c'était les pires ennemis et pourtant on l'a vu dimanche passé on a vu deux personnes yoo xam ne taxaw nañ di affronter wu avec benn violence boo xam ni kenn mënu ko expliquer mhm. la lendemain il se retrouve di accolantante di di di di di saafonte saafonte boo xam ni humainement da ngay da ngay kontaan donc ça veut dire quoi ça veut dañoo yor benn espoir bu xaw a metti benn espoir aussi boo xam ni dafa am beneen facteur bu ñu xaw a sonal muy lan dañoo primer trop mhm. l' aspect mystique si kaw l' aspect sportif da ngay gis mbër entraîneur ni ko ñëwal tele heure nga entraîné defal nii defal nii sëriñ bi ni ko defal lii mu dem def li sëriñ ba wax. mais làmb la ñu wax nag. oui d' accord mais avant làmb dañ ni sport làmb c' est sport d' abord mais malheureusement dañoo jiital sëriñ si ba pare soo waxuma sëriñ amul waxuma tamit sëriñ. Euh, bokkul si yëf yi non sëriñ si yëf yi la bokk euh, mais il faut reconnaître que on est sport nañ sport ba pare lépp luñ si mën a boole nag ñu boole ko si mais malheureusement dañ siy boole ba pare soo ko def sport